ngir am ay xibaar yu leer te wóor ak lépp lu xew ci wàllum actualité nationale et internationale aboneel gaaw ci sa chaîne bi di ASG Production liggéey ba eggal foofu lépp jébbal te amuloo lal kenn mësu koo gis kullu ñus ku fiitu kulla darari yallahu bisri la ilaha illallahu habli muradiya kama waawu bisri la ilaha illallahu yasir li usra kama waawu bisri la ilaha illallahu ala nabil mustafa yallahu salli bi la ilaha illallahu salatu muqnin bi salamillahu bisri la ziar si xam yu góor ni nga xamante ni ca fajar laa fi waroon ñëw ak saay liggéey fi mu toll nii yees loo bu ma yees ndax dama amoon ay gan yu bari barke Seexul Xadim bëgg a jug bay ñëw gan ya bari ca kër ga ma xam ni maanaam su ma génnee dem def lu ñaaw te su ma nee leen nan leen dem mu mel ni dàq na leen ma ne kon li baax te rafet mooy mu muñandi ba yàlla dogal ñu dem suñ demee ma daal di ñëw waaye billahi ca fajar laa bëggoon a ñëw li ànd ci liggéey man am njàng ma ya fi ndax yàlla daa dogal Cheikh Abdou Gora mii li mu wax day daa day wér ca ci banuy ànd maanaam léegi mu toll ci fukki at baa mu ëpp ko yàlla dogal benn àndeeg léegi suñu borom boole nu boole ko wér ndax bu doon sunu xarit def naa ko lu jar ma def na ma lu jar ma ba ko waaye barki Seexul Xadim yàlla doonoo boole muy ànd te yàlla tax barki Seexul Xadim te moom moo doon ko xamante nii ku yor jikko ju rafet ngi barki Seexul Xadim wallahi nasim maanaam lu baax rek lay gis loo def lu mu ñaaw ñaaw mu fexe ba mu baax barki Sëñ Tuubaa yàlla lii la saxal saxal ñam ñe ba muy ayu bis seex na tey ma ren nii nit ki taxaw joxtani ndax ñu mandi daam ne ko jaaraama mu jàpp ab jaam bi su keroog jébbal ma gam borom saam daal di saxal na lu gileem fa daaru biiru li bamba toog ba réew may waaru lim ren di ci gàtt ma nee su ko lim joxe ci fasit ma nee su xam lim joxe ci xaalis amul ndakaaru ci bak marakiis la teewoon na daaru ay piis la woon de tax ma bamba wàccoon biir ak biteek marlo ya bure sàkkoon sooy ak baraaya lay seex bamba ci keeki miskik lañu pomfelal ba ay lampi gaas la daa jëfal leer ya gandoo war daaru gaay caiba ba boor la daa tàngale buy ataaya gë sën bi xaqan bu noo taaya ba boor la daa tàngale buy ataaya gë sën bi xaqan bu noo taaya baraada bun wurus ba xaalis ay kaasi weer lay naane lool laa gis fas baraaya ak baraada baraagi moo ko njëkk am mooy ala karoos la daa rang sëriñ sa roy mu far ko maan wota mu aksi doy ko sëriñ sa roy ko jol mana juusem ba fukki woto ñaar jëfe nak essence ba sun goro yoo mu romb leen ni roppalaan gi tof tofi way ko ko mooy xaw su samaan sun goro yoon mu romb leen ni roppalaan di tëf tëf yi wëy kooka mooy xaw su seex anta li mu def jar na wëy su bàngoon xar baax la dul ndaw lii mu def amuloon seex anta li mu def jar na wëy su bàngoon xar baax la dul ndaw lii mu def amuloon day bokk borom Tuuba di doomi baayam ñëw takaat la xasaayam liggéey di daamam sax ci moom di ko toppoo ko sàkku seex anta te li mu feeñal deman dama yem may ki jug nara way kii di siidi gaawaan ngir mayam dafa làmboo gënee dir duwaan may ki su sama ab yaat ci bëru ñu jaar ñëw taxaw di ci way kii du nee ni ñu jaar mooy siidi yel muxtaari ibnu mamoor ndey jamaam anta jaay la jigéen jaman góor diglul ma melokaanam nga xam ne kookee feeñal na taar jaar yuusuf ci ahlu mbàkke gàttuloon dafa njooloon te xees rafet kaar baatam ba dana collet di xam di sa feer xeesaay ba dafa leeroon te bët ya daa weex xarkanam ba taaru ba ñam ya daa weex taar ba woon yuusuf barke bak suleymaan bur yàllaay ki ko boole ci siidi gaawaan doxiinam watee yoon bàyyi ñàkki bàkkaar waxiinam watee neexit murit neneen kaar waajuru sin tàkko li dee seex ak seexam dafa jiitoo ci képp kuy seex Cheikh Anta daa gëm fa mu xal na day jaar may ki moom sama xol jox ko Sidi Muxtaar ku mu neex ka nga gëm def ko nii ma ko def maam seex laa gëm la mu wax na may def ma si lay ki fi jaaroon ci bëxru njunjaaj ñëw taxaw di ci way ki nu te di njunjaaj te dee si gaaw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 لصك فيما من ولاك جئت لي ألنت لي بلادا فرعتني بينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما هو ما يسوني مكنتني أظهر به وليجعل صدما ومدلي خيرا بغير صدما أبق لي الملك وعني سليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من دن غير الله يغني أو يدر فذاك في الدارين ذو كد ودر الدر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان الدر حمدا قديما صالحا ما توجه هدايا الباقي دل ردينا الصبح والطباق عفت بمدح المصطفى محمد خير هداء ما فل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعوه ومطيع الله دعوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباقي أنت الرحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفى البلاء والجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الوراء والضير يا من سؤال خيره عندي دلال اذكر لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الغيب مطلقا فوق منامي بكم واجعل بجاه آياتي صافيا لك به ما نجور